salli ala muhammadin sayyidul arabi wal ajam salaamaaleykum amante not Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar waaye di nuyu mbokku jullit rawatina mbokku taalibe yi di leen xamal ni ñu ngi fii ci Colobane Massalikul Jinaan ngir war fee def waxtaan ak jàngat laaj mbokku jullit yi nin tàmmee julli see fii àjjuma te tey président jël ab dogal daan ne leen tëj jàkka yi ak jumaa yi dina tëj jumaa yi euh, bu kenn julli jumaa euh, muy ndogal boo xam ne ma nga bàyyi ko ca njiitu président de la république jaar ci ne moo fi nekk sëñ Touba ndigal la di ñu tëj jumaa ji na ñoo xam ne jot ñoo dégg xibaar bi ñoo leen fii ñaxtu parce que dañoo fekk fekk ci biir waxtaan ak ñoom bokk taalibe yi bari nañ fi ku nee nga ñaxtu ku nekk sa gis-gis waaye noonu xam ne ndigal li ma nga kenn ni ci dafa mel ne moom tam dafa ñëwoon pour julli si de dafa mel ne ngaa ñëwoon pour julli si dañoo ah, ñëwoon ah. julli si fekk ndogal. balaa loolu tur noo tudd. Mm, man la Matar Ba maa ngi jógee Abidjan. yaa ngi tudd jógee Abidjan. waaw da nga jógee Abidjan. Mm, war naa man un mois nag. un mm. euh, jàngoro ji ba ba laalu Abidjan. non jàngoro ji moom àdduna bi yëpp la laal. jàngoro ji moom fépp ci àdduna rek la laal. Euh, rawatina Afrique mais nag xam nga Afrique euh, yàlla dafa dogal ne amuñu yenn moyen yi ndax européens yi sax mbir mi nañ cee sonn kon dogal yu mel ni ñun ñi nga xam ne ay julli wax dëgg yàlla seddul suñu xol. waaye nag dañuy jàpp ne ndogalu suñu boroom la rek ndax jàngoro moom mbindeef la rek waaw ñun ñi ay mbindeef lañ yàlla moo ñu boole sa sàkk ñun ñëpp kon nag euh, maanaam li ñuy wax daal rafetlu ñu ko daal waaye nag euh, naqarilu ñu ko ndax nit ki lépp looy def lu ne da nga tal loo tal lu ne doo ko def te gis na ni virus bi ravagé rawatina Chine Chine nga xam ne ku ko xam xam ne maam dëkk bu am doole la waaw Italie tamit seen sanitaire ko am doole te xam na ne Sénégal population Sénégal toll nañ toll noo xam ne médecins yi tolluñu noonu kon tey ji bu ñu defee lii nii nii maanaam dogal bu ñuy xam ne ñun julli nii ñëw di julli si mënoo julli loolu ñuy naqarlu la waaye nag ak cant rek lañ ko def daal ndax ñun ñëpp ay taalibi la ay ndogal rek la ñu nangu. waaw te ku am kilifa doo réer daal. mu mel ne ñëwoon nii pour julli si. waaw dañoo ñëwoon julli si waaye nag yàlla dogalu ko waaw ndax dañoo fekk bërëb bi tëj te comme julli moom euh, julli àjjuma sunna la te farata jaa ngi fi ah dañu julli suñu farata rek euh, euh, dem ba beneen yoon waaw yëm yoon yëmul ci benn daal waaw daal d'accord nga ci li ñu def waaw li ñu def nii ah ku am ndigal ndigal la comme ndigal la a ah, kenn du xët ndigal daal waaw xëy na moo gën ci ñun waaw ndax euh, nit ki lépp looy def lu ne da nga koy tal fekkee ko loolu tëdul fekkee ko nag ah, wax dëgg yàlla doo ko mën a kii daal waaw jawriñ maa ngi lay nuyu di la siyaar waaw ah, ñii doo leen bi nan la man suñu Ablaye Fall tey ñu gis la nga ñëw julli si fii si juma ji ñëw fekk ñu ne jumaa ji dañ koo tëj bi nga ñëwee ñu ne jumaa ji dañ koo tëj lan la def ci yow ah yéema na loolu ci man de ndax maanaam lu toll ni jiwaay sëñ Bàmba ñu tëj ko yéeme na loolu daal ci jépp bépp meeluñ julli yëpp sax nag ndax fi mu boo gisee gars yi bëri ñu taxawaalu fii fi mu doon ci ñu ñu taxawaalu ci jumaa ji ne léegi ni nag bi ma jaaree li ndeysaan maa gis gars yi taxaw ñu ne doon tëj jumaa ji waaye loolu dafa yéeme nag yéeme na yéeme goo xam ne ci ci meeluñ ñëpp sax la métti na wax dëgg yàlla ndax dañoo métti sax nag ndax lu tax jumaa yi sëñ Tuubaa ñu tëj ko ndax feebar met na ñëpp fan nga jógee ni pour julli si. man maa ngi jógee ñaari tali pour julli si ndax man chaque jour fi laa jullee. fi nga tàmm jullee. waaw fi laa jullee chaque jour uh-huh. lan nga mën a wax askan bi nga xam ne ah, lii ñu actuellement ñu ngi koy dund ban message ngay jàllale ci li message bi daal xam naa nag man naa li may ñaan ñaan daal bu mu yàgg ndax la ndax lu toll nii julli àjjuma ñu tëj ko tamit loolu yéeme na loolu ci àdduna bi maanaam yéeme na ci même lu dul àdduna bi sax yéeme na suñ réew mi nga xam ne réewum islam la te julli la ñoo xamee ndax maa ngi fàttali benn xissa boo xam ne maanaam Sëriñ Tuubaa bi nekkee ci géej gi a tubaab bi ne ko doo julli suñu bato dafa sànniwoon ab derem ci biir géej gi julli nga xam ne moom farata julli farata la na ko farata goo xam ne mënul ñàkk ci doomu aadama ndax suñu borom nee boo feebar bu mënoon tëdd sax war a julli waxuma la toon ni julli àjjuma nag ñu bëgg ko fomm feebar bi nag xam na ne feebar la waaye maa duñu tey ñu jaamu suñu borom ndax jaamu yàlla ci nga mën a ñaane suñu borom wàccee maanaam feebar bi ndax ndax ndax feebar bi sax daal nag wax dëgg yàlla ndax maanaam julli yi buñ dajaloon ñaan suñu borom ci jumaa yi suñu borom mën nañu cee yërëm wàcce feebar maanaam dalal feebar bi lii daal yéeme daal wax dëgg yàlla nag ci ñëpp nag la métti nag wax dëgg yàlla ndax man ba ma rombee suba ba tey maa ngi dégg gars di ko met lu wér a wér ñëpp ñu ngi koy métti maa ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay jaar sëñ bi tur bi nan la Mamadou Seck Mamadou Seck Seck waaw tey ñu gis nga ñëw mel ni ku wàcc si julli si jumaa ñëw fekk ñu tëj jumaa ji loolu ana la def ci yow. non tey moom am naa la moom metti lool li ma naqaree nii moom mosuma ko am mu juddoo ba léegi ginnaaw bi sama waajur génne àdduna moom bii moom bokk na ci li ma gën a naqari sama àdduna su waaw. ana la ci naqari parce que dogal ba nga bàyyi ko ci président de la république. waa bu euh, mu ngi jógee ci président de la république. maanaam feebar bii nii doye di jullit yi sax mun na ko yokk sunu doye di rek mun na ko yokk. parce que ñun amuñu lu ñëw dajaloo ci bérébu yàlla bi julli ñaan sunu borom teggi jàngoro bi jëlee ko fi ndax jàngoro bi moom buñ demee ba àdduna yàqu yàlla dina wàcce feebar boo xamante ni si moom mooy jaaxal doomu aadama yi liy waral nag loolu jeex il faut que ñu delluwaat si jàkka yi ak jumaa yi julli ñaan sunu borom moom mi ko fi indi te mën ko fee jëlee mu jëlee ko fi mais du mbindeef moo ko fiy jëlee yàlla sunu borom rek moo ko fi mën a jëlee daa rafetlu woon ni tëjee jumaa euh, euh, yi nii. man franchement kontaanu ma si ju jumaa yi parce que buñ ko tëjul woon ñu ñëw julli bisu tey bii ñaan sunu borom yàlla war na mën a teggi balaa bi ak musiba bi parce que adduna bi moo yàqu buñ demee bay wutal yàlla morom di dem bay wutal di dem bay jël lu daganul ñu di ko daganal ah ah lii mënuñu lii waruñu bett de parce que bu demee ba adduna bi yëpp bëgg a daganal ngóor jigéen ak yeneen yuy ñaaw. léegi ku mën a def sa moroom lu ñaaw def ko ko ku mën a def sa moroomum julli lu bon def ko ko foog yàlla wàcce lu mel nii parce que dafa bëgg xel yi delluwaat si moom kon dem ci bërëbu jaamukaay yàlla yi julli ñaan suñu borom jële fi musiba mi ak balaa bi rek mooy mooy moo mooy farata bi mais tëj jumaa ak jàkka yi du farata. fii nga daa fii nga tàmma jullee. non man fii laa doon jullee chaque jour chaque jour parce que dama noon tey sax du ma xëy liggéey mais damay julli ba pare rek door a dem dem liggéey. parce que bi ma ko déggee affaire bi bett na ma gëw ma ko woon nag mais bi ma ñëwee gis lii laa door a xam ne lu am la. fan ngay bàyyi ko nii. maa ngi jóge Bentali. Bentali nga ñëw pour julli si. waaw fa laa jógee pour ñëwoon pour julli si pour bu ma jullee ba pare dem doxi sama ay yitte mais franchement tey moom am naa lu ma lu ma am naa lu ma bett lool. parce que ñun murid yi ak ñun jullit yi ñu woon doyadee nii nan delluwaat ci bërëbu ñaanukaay yàlla yi te ci néegam bi lañ ko mën a ñaane mu dégguñu kon tey léegi yow bu arrêté julli bi ba pare feebar bi continuer ñun lan la ñuy wax ak sunu borom bu yowmal xayaamee léegi nag bu demoon ci bëre bu jaamukaay yàlla yi julli ñaan sunu borom teggi loolu ndam lay nekk si jullit yi ndam la doon doon yi ci jullit yi ñu julli woon ñaan sunu borom mu teggi ko te bu defoon loolu yàlla mun na ko teggi. li ngi dooram ci islam de. non lii kañ waxuma la l'islam mais dafa ñaaw sax ci ci ci ci adduna bi ci adduna bi parce que bu ñuy joxe référence dañ naan màkka sax xam nga ñun daawuñu woon doxee noonu donte nag dogal la état bi jël ak préfet bi jël ko danañ ko fekk si ci moom li mu bëgg mais franchement lii ñaaw na ci derul islam moom. parce que yàgg nañ ko xeex yàgg nañ ko bëgg kon tey am nañ ko euh, préfet nag liggéeyam lay def ñuy danañ fekk si ci li liñ bëgg ndax ñun murit moom ndigal rek lay jëfee comme sëriñ bi joxe na ndigal danañ ko fekk si ci ndigal li mu bëgg mais franchement lii moom ñaaw na ci derul islam moom. ñu ngi lay ziar. tur bi nan la. Cheikh Kara. Cheikh Kara tey dafa mel na nga gàddu sa sijaada ñëwoon pour julli si waaw tey moom dama jëloon décision pour jógee Géejawaay ñëw ba Masalik pour julli si parce que fii laa la tëj nañ jumaa ji en tant que jullit la def ci ndigal jug na murid ndigal rek la mën a jëfee ndax ci loolu lañu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yar comme que dañuy toppante depuis jamono ku tedd ba léegi dañuy toppante loolu la àdduna sosoo ndax euh, suñu borom moo fi nekk yonent bi ñëw na ko dànd Serigne Touba ñëw na dànd yonent bi Cheikh Modou Kara ñëw na dànd ku tedd ki Serigne Touba kon ñun nii rek la mën a nekkee mu nii rek mën a demee duñ jaaxal nag mais ndéem Touba julli nañ jàpp naan sëwi na ñëpp. Touba ah, julli nañ. waaw Touba julli nañ waaw Touba julli nañ. ah mais daal ci kon digal li wàcc. waaw dinaa ci d'accord ndax ndéem ku tedd kii ndéem ku tedd na ni Touba mooy base bi Touba mooy base bi murit ndéem Touba julli nañu rek julli wàlle nañ ñëpp ñun suñu xel dal naa waaw loolu lañ jàpp man yéene boobu laa am man Cheikh Kara waaw yéene boobu laa am. jërëjëf Cheikh waaw jërëjëf. jëwriñ maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. tur bi nan la. sëñ Saliou Seck. sëñ Saliou Seck mu mel ne da ngaa ñëwoon pour julli si àjjuma. waaw dama ñëwoon pour julli si waaw mais jullit jullit jullit nañ delloo seen xel si yàlla suñu borom mooy tegee nattu mooy xool moo xool jàmm bu ko neex mu teg ko nattu waaw ay balaa suñu borom suñu borom moo ko yor. boo tëddoon sa biir néeg sax bu la fa waree fekk dina fekk mais ñi ñi fi jaaroon di xeexal l'islam li li ñuy xeex anañu ñun li ñu li li ñu war a weer bu jàmm da ngay gëm ak lu mënti xew ci àdduna jumaa du yoon wi koy tëj parce que mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy moom rek moo ñu fi indi jaamu suñu borom rek amul leneen mais ñun nag dañuy ay taalibe dañuy wéy ci ndigal rek dañuy wéy ci ndigal mais ak nu mu mënti demee bu àdduna bi yëpp doon dee sax julli waru waru waru fee jóge julli waru jaamu sa léegi ñun li ñu fi bàyyi pour ñu jaamoo ci suñu borom léegi ñu arrêté ko pour lan waaw lool loolu du yoon loolu moom man moom d'accord ma ci benn yoon. xati ah, fi ñu toll nii suma xool dafa fees ndax euh, mbir mi doy na waar waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depuis jamonoom ba nëgëni. amul benn ajjuma bu ñu mës a tëj nekk nañu ci biir xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci biir xare heure julli jot mu ne bu ñu faat waxtu wi nañu julli ji genn wàll gi dañoo arrêté dem julli ji ñaar rakka imaam xaar leen ñeneen ñi jóg ñëw julli yeneen ñu yeggali ci biir xare waaw lu toll ni ajjuma ah sëñ Babacar si dégg naa ci jamonoom waaw mbokku julli di mbokku taalibe yi ginnaaw julli ajjuma ji nga xam ne moom lañu tere fii ci Masalik ñun nag ñu ngi fii ci auto police bi waaye suñu liggéey la ñuy def waaye daal Massalik rassemblement am na fi service d'ordre bi nag ñu ngi koy tas ñu ngi sànni ay lacrymogène ngir tas ko ni ma waxee yéen nag man maa ngi nii ci biir auto police bi maa ngi Malick sama caméraman bi waaye ci liggéey bi la bokk sunu liggéey la lu nu ci fekk ñu jël ñoo waa Walfadjri ñu ngi ci biir ñu jàppandoonu ak ay tubaab xam xamagun fu ñu yóbbu nag waaye xam na ni ci liggéey bi la bokk waaye daal loo dégg daal mooy Masaalik mbooloo mi commencé noonu ñëw ndax am na ñoo xam ne neen dañuy julli far force mënunoo muñ ajuma ji loolu moo fi nekk serviteur bi nag ñu ngi taal seen i lacrymogène waaye yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla def ci ndox mu sedd ndax jullit julli tey mbokkam te ku ne xam ne réew mi ñoo ko bokk nan ko defar nan waxtaan waaw Malick ni ma la ko waxee rek ñu ngi fii ci Masaalikul naan ajuma ji nga xam ne li ma naan jullit ni ñu ci bari ñëwoon nañ yëpp boog ñëwoon nañ pour julli si jumaa waaye gis nga li xew service d'ordre bi ñu ngi fi euh, rassemblement la ni bañ ñi fi jot a nekk sax dañ koo tas sànni fi ay quelques lacrymogènes ngir tas parce que bëgguñu mbooloo mu daje ndax décret la bu bàyyi ko ci président jaar ci xalif général kon nañ ko jëfee jumaa jaa ngi nii muy nag loo xam ne nag c'est la première fois nag dip bañ ko ubbee ba pare ba ko immigré ko c'est la première fois ñu Masaalikul Jinaan àjjuma jot julliwuñ fi mii lu yéeme waaye ndigal la ndigal lu bàyyi ko ci président jaar ci Sëñ Muntaxa bi nga xam ne moo fi Sëñ Tuubaa kon nañ ko jëfee te jàpp ndigal li te xam tey ñaan jàngoro ji yam fi nag nanu ñaan jàngoro ji yam fi ci barke yonent bi barke borom Touba. waaw maa ngi tudd Mor Dagg si la maa nekk ci cellule de communication Massalikul Jinaan bi. tey ñu fekk la fii mais warum euh, euh, mooy ndigal li bàyyi ko ci Muntaxa ak waru may ci mu gars yi waroon taxawee mu des ba am ay ba jëmee génne la ko masal di ko sànni ndax loolu jaadu woon na ci loolu. no li ñu mën a xam jaax daal mooy sëñ bi moo joxoon ndigal ñu tëj jumaa ji. ndax euh, euh, kilifa yi nekk ci dëkk bi ñoo yore euh, kaaraangeeg dëkk bi yore kaaraange aussi santé bi ñoom ñoo xam lu tax ñu dëgërul ndax tawat bii di Covid 19 ku ne xam nañ dafa doy waar looloo tax nag sëñ bi joxe ndigal. dëkk li la ci ba gouverneur jëlee ay directive ne nañu tëj jumaa yi nekk ci Ndakaar yëpp lu mës am ci Ndakaar metti na nag mais nag ñun murit moom bu sëñ bi joxee ndigal dañ koy jëfe moo tax jëfe nañ ko ndax moo xam ne tax mu jëfe ko te jàpp nañ ni autorité yi ko joxe teg nañ ko fi wér ndax tëj jumaa moom responsabilité bu mag la tamit gannaaw ñoom dañuy xam nañu xamul bu ñu ko joxee lu ñu def lu ànd ci loolu mooy yille gi ñi fi ñëwoon pour julli si ñoo ñàkk a jëfe ndigal wala information moo yeggul ci ñoom. non xam nga information eh, du ñàkk ay benn benn mais julli julli ay benn benn la rek mais du julli bi kii loolu rek la mais daanaka kenn julliwu fi moom waaw loolu la. waaw ah, gisoon ne nit ñi ñëw nañ ba serviteur bi sax commencé sànni ay lacrymogène. non xam naa attroupement bi lañ ñoon kii rek ci li ma yaakaar ndax eh, ñoom wax dëgg yàlla doon nañu wax ñoom ndax liñ wax ajjuma bu nañoo nekk fii dañuy waxtaan ñoom avant boobu ndax ay nit lañu Njaay ak Jóob lañ sant ak Jaxate dañuy wax ne leen nii julli la te mbirum diine la defal leen ak ñoom ne boo leen moom boo leen leen ndigal sëñ bi daa joxe ndigal rek dañ koy jëfee waaw. ndigal jàpp ne lu yàgg am ak ci bu tay rek la. ah nag loolu moom El Hadj Mbackiou Faye gannaaw moo ñu wax ñu fexewaat ba loolu mu taxaw suñ jëriñ Mbackiou Faye moom la sëñ bi woowoon moo xam naa lu mu ci joxaat ndigal nañ fexe ba presse bi ñëpp yëg ko bu jëlee communiqué ñu def ko bu nee yaatal nañ ko yaatal waaye daal ñu ngi ñaan tawat bi mu yem fii ndax lu dem ba ñu tëj jumaa lu rëy la ndax it ku ne xam na ni wàlleen bi dafa bëri dafa gaaw te tey ji ñaanuñ ko yàlla bu ñu ubbi woon jumaa ji am ku jóge fa yaa ngi dégg suñu bokk moo di jóge fa nekk ñëw dugg si jumaa ji lu ne mën na ci xaj te fi mu dool yemul foofu yaa ngi dégg sax yeneen mesure fa may waxee yow ni commerçant yi yenn marché yi kon loolu lépp nga xam ne mbir la bu sérieux la daal ñu ngi ñaan mu yem fi daal barke Cheikh Khadim jërë ngeen jëf jërëjëf Allahumma salli ala Muhammadin sayyidul arab